واحلل العقدة من لساني يفقه قولي واجعل كلامي راشدا ومرشدا وفكرتي نوبر وقلبي مكتلي بي بانلين دي نيو دي لن سيارة دي ام بكتي تي جتا يو اغيين تي برب يو سل بيغا خامني موي Thiès di bërëb boo xam ni ay gaañu baax ñu bari ñi ngi rawatina jëmm ji nga xam ne moom lañ doon tudd léegi mu nekkal fii xalifa murit yépp di sëriñ Saalifu Ture di xam ci yoonu koy di ziyaara mbooleem ñi nekk ci dëkk bi yépp di bu baax ci bërëbu jàngukaay yi nga xam ne léegi buñ seetloo dañu fi jàng tubaab ak di fi jàng xam-xam waaye murit yi nga xam ne ñoo fi ne saa yoo fi ñëwee dante ci ñoom ndax ñi ngi sàmm seen diine di sàmm seenu taalibe te loolu am ne jamono mu tumuranke woon lool ci bërëb yu mel nii loolu ñu ngi ci santaat yàlla di ci ñaan yàlla mu gën koo dëgëral ci dara Cheikh Ahmad Bamba waxtaan wi nag dañoo xam ne nañ waxtaane comment purifier l'âme muy waxtaan woo xam ni xëy na njëkkoon naa ko def ak waa al azhar euh, ti al azhar Touba te muy waxtaan wu gudd woo xam taay bi yaakaar naa ba tax na damay jël ya ca ëpp solo ca yama waxoon li ci des nag ginnaaw wax nañ ma ne dina am ay laaj lu ci ñëw ci laaj yooyu lu ma ci xam rek ma wax ko ma tontu ko ma tontu ci bu soobee yàlla ma ci xam waxtaan woowu dañ koy waxoon ne dañ nan la ñuy sellale ruux xam ngeen ne ruux doomu aadama mooy li ëpp solo ci li nekk ci doomu aadama Sëñ Tuubaa ci نهج قضاء الحاج gis ngeen mu wax ne fa hada murabbi ruuxu jawharun wax ne sëriñu sëriñ bi ruuxu nit ki lay tërbiya moom lay yar moom lay defar moom lay raxas moom lay sellal ba mu mën am digganteem ak boroomam ak ratax am ca ak déggoo am ca mu bëgg moo sëñ wax ne ruux googu nag mooy jëwhër bi mooy mbir mi mooy wurusu euh, wu sell wi moo ma tey yittewoo ruux googu nag dafa nekk ci biir jëmm ji nu yor jëmm ji ngay gis nii du dara lu may ak kees goo xam ni moo ëmb ruux gi ruux ca dëgg-dëgg nekkul ci biir ruux gi nekkul ci biir jëmm ji waaye loolu misaal noonu lañ koy misaalee mooy ruux gi dafa nekk ci biir jëmm ji waaye ruux ca dëgg-dëgg du luy nekk ci biir jëmm borom xam-xam yi wax nañ ci wax yu bare bare bare waaye mooy ruux googu nga xam ne mooy yow nga xam ne fii nga toog booy dégg dégg gi ngay def ruux gee koy def gis bi ngay gis ni ruux gi moo koy def xel mi nga am ni di denc ay xam-xam di ko mën a delloosiwaat loolu ruux gi moo koy def xam ay yëg-yëg di bëgg di bañ di naw mbir ak yu nu demee loolu ruux gi moo koy def bu ko defee jëmb ji nga xam ne moo ko ëmb nag du dara lu may ak kees rek goo xam da ko def fi ne bis boo faatoo buñ la suulee ci suuf si ay fan yu neew jëmm ji del yax yeeg lépp day mujj doonaat suuf matière yi ñu yi yi composé suuf si ñu ne moo composé jëmm ji ji nga ji nga yor ni buñ ko suulaatee ay fan mu dellu di suuf li tax nak ngay yek di xamé di xam di bëgg di bañ yoy moy ruh gi ruh boobu nak lu sel la te mi ngi fi won bu yàgg yàgg yàgg yàgg yàgg sunu borom mo nu xamal ci alquran ne bis taxawal na ruh yépp ne len alastu bi rabbikum ñu ne ko bala moy ruh won yow bi nga demee ba war a judd lañ ko jël dugal ci ci sa ji nga judd tudd muhammad wala muudu wala cheikh wala nangam ak nangam bu ko dee ruux googu am solo ndax bu sellee set fexe ba ci kaw àdduna bii nii mu sàmmonteeg bëgg borom bis bu delloo dana nekk ci ay xéewal ak i mbégte yoo xam kenn du ko waaye diir bi mu nekk ci àdduna bii nii nga xam ne diirub nattu la su sàmmoontewul ak li yàlla bëgg fii nekku ci dana du yelloonteeg dellu fa sunu borom tabaaraka wa moo tax dañ koy dugal ci fu ñuy wax sawara foofu lañ koy tëj daf ak da Cheikh Saliou Mbacké mu baax ma damaa dégg koo xam damaa ne damaa dégg muy nett li wax ni Sëñ Saliou daana wax ne murit dem sawara waaye nag àjjana itam lu bon du fa dugg nan la ñuy def mooy lu ku fi ku fi am ay taq-taq dañ koy fóot am na ñoo xam ne ci bàmmeel bii lañ leen di fóote bu setut boo dekkee ñu fóot la ci sawara bu setee wecc nag nga doog a dem loolu mooy jullit ñi faw ñëppay dugg àjjana li ma bëgg wax rek mooy ruux gi taq-taq yi mooy tax du man a yelloonteeg nekk fa bërëb yooyee nga xam ne moom la yàlla waajalal jaamam ñi nga xam ne da leen a sopp ruux googu nag moom lañ bëgg a waxtaane xam ngeen ne mission wu yónente yi sallallahu alayhi wa sallam wa sallam yónente yépp seen mission mooy tazkiyatu ar ar alwaax ar ruux ci alquran sun borom wax na ne kama arsalna fiikum rasulan minkum yatlu alaykum ayatina ويزكيكم تزكية موي بريفية بيغن واخ لي يزكيكم دا فا بوك يونتي موي تزكية موي سلال روحي أقلي خولي دوما ادمي ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة امنا بنن آية بو خامني دا هو الذي بعثنا رسولا منهم يتلو عليهم آياتنا ويزكيهم موي تزكية موي سلال روح لو دا فا بوك يونتي صلى الله عليه وسلم ak ñi nga xam ne ñoo ko doon ginnaawam doon yeesal diine ji ba tax na ruux gi dinaa koy wax ci waxtaan woowee wax naa ruux lenn rek mooy ak lekkam suñ tubaab wax ne waalam bi anna dikra quutul qalbi ruux ak dundam mooy yàlla ak lu aju ci yàlla ak tudd ko ak fàttali ko ak waxtaane lu aju ci yàlla ak i gaayam loolu mooy dundal ruux léeg nga gis nit ñoo xam ne dañuy bañ duñ bëgg a toog ci jataay yu mel nii duñ bëgg a dégg fu ñuy waxtaane lu baax mbir yu bari ci yu baax nii da leen di soof ñooñu mooy dañoo feebar dama koy misaal ci sa jëmm jii nga yor léeg-léeg mu feebar léeg mu feebar ba li gën a neex ci kaw suuf da koy bañ moom mu soof ko te du ko bëgg sax xeeñ neex yii nii ceeb yeeg ginaar yeeg yooyu noonu boo siburo bu la xeeñee sax ngay bëgg a wàccu da bëgg ñu ñu génne ko fi nga loolu tekkiwul ne ceeb bi wala ginaar yi ñoo ñoo ñoo neexul wala ñoo am jafe-jafe yow yaa am problème yaa wéradi ruux gi noonu la mel ruux gi lim gën a bëgg mooy yàlla ak lu jege yàlla bañ ko rek dafa feebar bu feebaree nag dañ koy faj bu ko defee faj googu ñu koy faj moo fi indi yonente yi yonente yi ma nga tàmbalee ci sayidna aadama alayhi salaam ba ci sayidna muhammad sallallahu alayhi wa sallam jógee ay nit ñu baax ñu ko donn ci zaahir ak ci baatil ñoom la yàllay waajal ñu ñëw yeesal diine ji ñooñee nag ku ci ne itam yitteem mooy defar nit ak sellalaat ruuxam ba mu mën a jege yàlla ak mu mën a mos ci leerug suñu borom dëgg dëgg fees xolam loolu it ba tey lu wér la ci alxuraanul karim suñu borom wax nañu ne wali kulli qawmin haadin mooy nit ñu ne yabalal naa leen ku leen di jubbanti ak di leen gindi jubbanti ak gindi ci yàlla yi ñoo koy def loolu fi ñu koy déggee mooy lan beneen aaya boo xam ni sunu borom dañuy wax ne wa man yudlil falan tajida lahu waliyan murshidan ñi yàlla bëggul ci ñoom ñu jub bëggu leen a jubbanti da leen dut booleeg waliyul murshid mooy ku leen di jubbati di leen defar di sellal ñun nag kon am nañ taw feex ndax yàlla boole na ne koo xam ni moo doon tëskiya mboolem ñu jamonoon teel ba bàyyi fi nag programme bi nga xam ne ci la ñuy tëskiya ñi ñëwagul mu si Cheikh Ahmadou Bamba radiyallahu ko kon yàlla bëggal nañu ak njub te bëgg nañu itam moo tax mu boole. ni ñuy toppee nag ku mel noonu loolu lépp ci alxuraan la ne. li ñuy waxtaan ni lu ci ne mën naa ci mën na ci indi ay ak ay xaddis waaye day gudd day gudd xam ngeen ne sayidna muhammad ku ñu wax xandala ak ku ak sayidna abu bakrin mas nañ koy jàmbat ne ko noonu buñ toog ak yow da suñ xol day set sell ñu yëg ay yëg-yëg yoo xam ni day mel ni dañuy janloo ak alaaxira ak la ca xaw waaye buñ demee ci kër ga foo jigéen ñi dañuy gennat ci xal bobu ba melne dañuy dugg ci xaalu sayidna muhammad lam lam len tontu moy lan da da dafa dafa giñ wax ne walladi nafsi bi yadihi law tadumuuna ala ma takunuuna indi wa fi dhikri la al malaikatu ala furushikum wa fi turuqikum xaal bi ngeen fi man ak bu ngeen nekké di tuddu yàlla xaal bi ngeen ci am yi ngeen ci jëlé su ngeen doon sax ci loolu diir su néew malayka yi di saabu xante yéen ci ci seen kaw lal yi ak ci mbedd yi ngeen di leen gis ñu leen di gis ngeen di nuyonte ñoom kon da ca walakin yaa xandala saatan wa saa mooy xadis bi imam muslim natali mooy da ngay def waxtu ci lii dellu nag ci àdduna nga def ci waxtu bi ki ma doon wax bi mi ngi ko doon junju mënu ci mooy mbirum yàlla mi ak xaal yeeg daanu jëli ak maanaam njàng mi ab temps waaye defal beneen temps itam ci nooy lijjante sa àdduna nooy lekke nooy naane noo amee njaboot ak noo koy taxawale bu ci ëpp rek jafe-jafe de daal di am su ëppalee mbirum àdduna bi di nga sànku waaye mbirum àllaaxira mais su ëppee ci yow it da dugg ci li ñuy wax jës ba majzum mooy kenn du jariñu ci yow te doo jariñ kenn ku la diingar yàqu waaye kenn du la roy ci tasawu dañuy wax ne majisu kenn du ko roy parce que boo ko doon eh, de sàkku sax ci moom ñaan ndax bu lay ñaanal la muy lay ñaanal mën naa doon lu baax waaye du gën ci yow ne mën na la ko ñaanal masalan moo tax fii dañuy wax ay kilifa yu bari du leen tudde majsuub te ñoom weesu nañ ay majaasib ñoom ay ay ay ay ñu ay mat lañ woon ci ñi Sëñ Tuubaa yaroon rawatina bu ko defee kon loolu dama ci doon leeral rek ni jëmmi tazkiya muy sellal ruux gi jëmm ji nga xam ne moom la yàllay tawféexal muy mu koy mu koy def ak di sellal nit ñi ak di leen tërbiya loolu yi mënta ñàkk te lépp ci alxuraan lañ ko lañ ko jële bu ko defee ruux gi ni ma ko waxee léegi dëkkul ci monde bi bépp kawe yàlla dëkk fi ne bari na mbégteem xol mooy yëg te fekk ruux gi moo ko yëg boo déggee kàddu gu neex rawatina kàddu ñiy jàng xasida léeg-léeg nga yëg ci sa xol bànneex boo xam ni bokkut ak bànneex yi nekk ci kaw suuf xam nga jëmm ji dafa am ay bànneexi boppam neex ak lu mel ne sëy diggante góor ak jigéen ak yu ni demee yooyu moo neex jëmm ji nii bakkan bi li ñuy wax bakkan moo représenté jëmm ji waaye ruux gi dafa am yeneeni bànneex tey boo toogee ñu jàng xasida léeg-léeg sa xool dana dana dana da yëg xeetu mbégte da nga xam ne liy bokkut ak bànneex yi nekk ci kaw suuf foofu day am ñoo xam ne nag seen jafe-jafe mooy mbégte moomu dañ koy gàttandu bëgg cee sax waxtu wu ne ñu koy gàttandu ak di ko taatan ngir bëgg mu sax ci ñoom bu saxee moo leen du jural ñu ñu teqalikook nit ñi ndax xaal boobu mooy li sax yoonte boo xam saxaaba yi bu boo ci dootu bokk ci nit ñi legi mbégte momi nak fan la juddoo moy ruh gi du ceegee sax li da ko neex ruh gi waye dafa fàttaliku bam nekké ca ca monde yoyé nga xamné yu sel la jege borom dara lu lu nakar yàlla amul fofé mbégte mam fa da dund mom lay fàttaliku tax mu yik li wax tarab moy sigéré lañ ko wax ci wolof mbégteem xol mo xamni kenn mënu ko misal ba tax na ki nga xam ne dafay yittewoo ruuxam fi ne tey dangay gis tubaab yi nga xam ne dañoo maanaam matad seenug dund day gis ko xam day am adduna ak li ci biiram am alal yu lim yor ci xaalis du jeex lekk yeeg naan yeeg lépp jàppandi ko ne gañ waaye léeg nga gis ñu toog dara du leen neex ci mbir yi fi mu ne tey boo demee ci réew yi eh, tubaab yi léegi li ñuy wax xeeti hôpital yi yi nga xam ne day faj wàllu psychologie ak wàllu euh, xelu nit ki kenn xam nu léegi dañuy am adduna ak li ci mu ne gañi seen biir ba pare duñ yëg bànneex dugg ci dorog di jëfandikoo dorog ak yeneen yeneen lan moo ko waral mooy seen ruux moo tumuranke monde biñ ko biñ biñ koy dundaloo nii neexu ko te dara lu koy lu koy lu koy dundal amu ko du lekk du naan ruux gi day gën di tumuranke di gën di fay leeram di tuuti di gën di day dee moom ruux gi léeg-léeg nag moo yëglu mooy njàqare liy feeñ ci ñoom te dara ko waral dara du ko sabab te adduna lii xeeti bànneex yépp nekk fi seen kanam loolu njàqare loolu ruux gi moo koy sànni moo koy yëglu moo tax ruux googu lu mat a bàyyi xel la sa jëmm ji ay bëgg-bëggam ba fàtte ko dara ëpp ko solo te li tax yàlla nattooñu ruux gi noonu ñu war koo defaraat defar xol bi ba mu maneeg suñ borom jege suñ borom mooy loolu ab nattu la bu yàlla nattu nun nun doomu aadama xam nga ne adduna mbooleem li koy doxal lépp yàlla da koo tër ci kaw lan ak bëgg ngir àdduna bi mën a mën a wëy dund ji mën a wëy jaamu yàlla yitam ak jege yàlla ak bëgg moo koy lal waaye bëgg kooku yàlla daa bëgg nga yoona ci am ko mooy tax nga yeyoo lam la ci war a faye fi mu ne lii tax sunu dund jag lépp yàlla da ko tëral ak bëgg moo ko lal dinaa ko misaal ci lu mel ne misaal am kër sëy sëy lu metti la dara gënta metti yor kër jote eh, góor ak jigéen itam loolu dara gënu ko bu ci bànneex bi génnoon bëgg gi génn ci kenn du ko def ci noonu parce que lu lu lu ñépp dañ koy seexlu masalan xale bu ndaw bii doog a juddu di ko toppatoo di sonn ci moom bu doon ak bëgg gi mu ko bëgg fi mu ne da koy bàyyi mu faatu xam xale buy doog juddu dëkk ci jooy mën a wax ak moom lu mu dégg ñaari baat ñett mu jooy di di tuur ndox ci kaw sa kaw yére di dem wana ci sa kaw yére te doo ko loolu coono bi ci toppatoo ko bu ko ak bëgg ay ku jur doom da koy sànni te boo mu faat te boo kenn kenn du màgg te boo boo kon dund gi du am ngir wéyal dund gi moo tax yàlla def ci ak bëgg ndey ji bëgg doom ji bëggamewu ko tax mu jaral ko ay guddi yu bari mu ñàkk ko nelaw guddi ngir maanaam doom ji mën a dund lekk mii nii bu ci bànneex bi génnoon bëgg gi nga bëgg lekk génn ci kenn du lekk ndax lu lu sonle la te barib coona dara gënta sonle lekk yow nag doo ko seetlu ndax bànneex bi ci ne wut alal dara gënu koo metti waaye neexitu am alal moo la koy fàtt taxawal ay entreprise ak ay liggéey yu mag di ci sonn kër kër ji ngay def ngir ngir mu taxaw loolu dara gënu koo coono waaye bëgg alal ak bëgg boo amee alal ji di ci dund bànneex boobu moo lay fàttaliloo coono bi kon yi tax dund géewe yépp yàlla da ko lal ci ak bëgg waaye bu dee nag sa diggante ngir mu sell loolu moom ab nattu la bu yàlla di nattu doomu aadama yi bëgg ñu def ay effort pour ñu yeyoo lam leen di faye ginnaaw bu buñ delsee fa moom moo tax nit ki war a def effort ci ruuxam ak xolam sell ruux ak xol yooyu nag ay mbir la yoo xam ni ba tey mënee ne ko leer dëgg-dëgg xol borom xam yu bari dañuy wax ne mooy li li dox diggante ruux gi ak jëmm ji su fekkee da ngaa topp say bànneex bànneex yooyu lëndëm gi muy sotti ci xol bi mooy fay fay leer ga ca ruux ga soo itam di ko dundal di def lu baax di tudd yàlla lu bari leer gay sotti ko ca ruux ga mooy sotti ko ci xol bi bu yàggee mu feeñ ci jëmm ji moo tax ñu loolu xol ba tey bokkut ak cër bi tubaab yi di opéré ci jëmm doomu aadama déedéet foofee nag la ruux di def jëfam di fenket li ñuy wax fenket manifestation bi muy def ci xol boobu daa nga am ay yëg-yëg même manifestation boobu lay defaat ci xel ci li ñuy wax yuur boog yuur pour nga am xel xellu ak yëg ak xam-xam yi nga mën koo denc foofu ay yu di demee ruux googu nag pour mu sell waxoon nañ ne Sëriñ Tuubaa ku ma saa ñëw ci mën a yoon mën hëj bum la daa jaarale tërbiya la ba yeewi la loolu waxtaane naa ko yaakaar naa ci bërëb lépp ma jële ko ci minanu baaxil xadim waaye tey loolu di waxtaan wi waxtaan wi mooy ki nga xam ne mi ngi ci liggéeyukaayam wala mu nekk ci tey boppam muy jàng wala feneen giseewlu yàlla def na comme nun ñii dajeewoog sëñ Tuubaa te gisoo benn sëriñ boo xam ne itam sag jot may na la nga dem fi moom ba mën a moo tërbiya la nan ngay def ba sa ruux sell ak sa xol set loolu dañ cee tibboo donc ñeenti jéego yoo xam ni ci njàngalem Sëriñ Tuubaa lañ ko tibbe ak tërbiyaam googee te képp ku ko saxoo diir su néew nga gis jeexit ci sa xol ak ci sa ruux nañ ko tërale woon ci waxtaan wooye nag dinaa ko soppi tuuti ba mu mujjee woon lay jëkk tey bi ci jëkk ñeenti jéego bu jëkk bi mooy lan lekk lu lew loolu secret la boo xam ni nit ñu baax ñi ci lañ wuuteeg mbooleem ñu may ñoom bu gisee Sëñ Tuubaa fu masa ne ba nit ñi fekk si ko mu tuxu dem ci eh, bërëb bi mu jógee bi mu nekkee Mbàkke Kajoor xam nga fa la jógee dem Mbàkke Bawol nit ñi bari fa coow li bari mu jóge fa dem Daaru Salaam bañ fa tàmbalee bari mu jóge fa dem Touba bañ fa tàmbalee bari ñeen ñi yeewu ko wuti soxna ndax ñi mu daa tërbie ku ci yeewu ko dañ leen di wutale kër ñu wuti soxna góor ñi jigéen ñi tàmbalee jaxasoo mu dem foofee la ko tubaab yi jële yóbbu ci géej gi wéet googu da ci jublu woon sori liy yàq ak di xajamal ak dund dund ruux ñaareel ba itam da ci jublu woon it man di bay lu leew ba muy dem ci géej gi dénk na borom daal di ñaari bëyët yo xam da ko ne saraay ruhul khalq in kunta aqilan moy mang lay dénk nga yitte wo mbay ndax mbay mooy loo xam ni daray sikk nekku ci fi ne tay ki commerce commerce bi day gaaw am ay ay ay sik ndax da nga wax lu amut wala nga ne prix bi li la ko jënde wala jëndoo ko wala mbir yooyu sewsaan yo xam day sik waye mbay nak yoyep amu ci ya jël sa jiwu def ci suuf ci mu génneel la li do seq kenn leneen moo tax sëñ bi dénkoon ko mbay mbay mom nak ci ala lañ ko mëna def liñ li ñu jubloon li ñu jubloon lekk lu lew sëñ tuba dara wax ne dara digle ne wajtahidu fi talab al-halal na ngeen farlu ci lekk lu lew lan motax moy dara wax ne laa yanfau al ilmu wala al ibada bil akli lil xaraami lekk lu lew mënoo jaamu yàlla nangu sooy ñaan yàlla du ko nangu loo mën a def ci lu baax yàlla du ko nongu xam-xam yi nga am yàlla du ko barkeel du ko nangu ndax li ngay dunde lewut loolu yonente bi sallallahu alayhi wasallam nu benn waay boo xam dafa nekk ca àll ba moom nekkul ci biir dëkk bi di dëkke yaa rabbi yaa rabbi di ñaan rek ak di jaamu yàlla te fekk li muy dunde lu lu léwut lim sol léwut léppam dafa dafa da ko da sax ci ak xaram mooy lépp li muy dund lépp lu xaram la kooke yonent di lu mu fa yàgg-yàgg ca àll ba di wax yaa rabbi yaa rabbi kenn du ko wuyu yàlla du ko wuyu annaa yustajaabu lahu suñu borom wax na ci alquran ne yonente yi ku ci ne yàlla lam lay dénk mooy yow kulu min at-tayyibaati wa amalu saaliha boo bëggee di jëf-jëf ju baax ju yàlla nangu na nga xënte woo di lekk lu lew kulu min at-tayyibaati wa amalu saaliha doog a ñëw moo tax loolu mooy secret bi na saad ibnu abi waqaas dañoo wax ne mas naa laaj yonente bi ne ko lu ma ñaan yàlla nangu ko yonent bi dana ko yaa saadu atib mataamak takun mustajaaba daawati soo bëggee loo ñaan yàlla def ko da ngay fexe ba li ngay dugal sa diw li ngay lekk mu lew loolu kon mooy poñ bi jëkk pour li ngay def nii am jeexit li ngay jàng ci xasidaak li ngay jàng ci alxuraan ak yi ngay def ci lu baax lépp ngir mu am jeexit faw fexel ba jëkkee li ngay dugal ci sa gémmiñ gi na lew lew nag yemul foofu fi ne sa kërit it fay def kër gi nga tax ak ni mébal yi nga cee def yooyu yëpp <coughs> fexel ba mu lew moom it loolee bu amee loo def lum néew néew yàlla dina ko nangu ci yow bu dul loolu nag li ngay def lum bari bari bari yàlla du ko nangu loolu mooy jéego bi jëkk fexel ba li ngay lekk lew suñ tubaa itam daan wax ne bokk na ci loolu li ci jëkk mooy fi nga njëkk a tàmbale mooy fexal ba ñi ngay àndalit nga xool leen boo dee ànd ak nit ku bon ku xolam màggat maxe tilim taq kooku boo dee ànd ak moom faw sa xol dalay wàll dalay wàll la ne fa moom moo tax suñ tubaab dara wax ne ñi ngay li ngay njëkk def na doon xool ñi ngay àndal nga baax ñi ngay ànd ñoom ñi ci des jëpp nag masraal ak ñoom jox leen cër waaye yow ki ñi nga am ci ay xarit nañ doon nit ñu baax ñoo tànn ñu sell ñoo xam ni seen jikko rafet na nga doog a ànd ak ñoom bu ko defee doog a def nag euh, lii ma jëkk a wax mooy di fexe bay lekk lu lew lekk lu lew moo lay dimbali sax ci mën a topp yàlla sëñ tubaab dina wax ne fëkkul xalaalan in aradta an tutia allaha wa rasula ya hada al mutia soo bëggee topp yàlla da ngay fexe ba li ngay lekk lew fi mu ne ki nga xamut topp yàlla yi da ci tayal yu bari yu baax da ci tayal du ko neex mën na ko def sax waaye du neex ci xolam du yëg neexin wi fi mu ne ci misaal dafa am yoo xam ne day tax doo yëg neexitu xol xol bii ñu waxtaane lu am la ñu bari léeg-léeg ñu mos ci as ngelaw su su tuuti upp seen xol ñu mos ko dinaa koy misaal ci benn saxaabi bu ñu wax abbad ibnu bishr dinaa koy misaal ci moom dafa am benn xare boo xam ne yoon bi nee ba guddi ñu campé fenn ci benn xur mu wax moom yonente bi sallallahu alayhi wasallam ñaari sahaba yi ne leen ngeen ngeen garder euh, nit ñi maanaam ngeen toog bañ a nelaw ñi ci des nelaw ndax bala ñoo yéefar yee bett ku ñu abbad ibnu bisr moom am nañu wax ne wax ñe yeneen sahaba yi waaye lu mën a xaw moo keneen la ñoom ñoo ñoo doon ñoo waroon a toog euh, bañ a nelaw ñëpp di nelaw biñ toogee ñoom ñaar ñu wax ne ñu déggoo ci kenn ki na nelaw bu ci kaname ma yee ko man ma nelaw tuuti moom moom mujj garde abad bi mu bi nga xamee ne keneen kaa ngay nelaw moom muy garde mu ne naa far julli bañ a nelaw ndax toog rek di xoole nii loolu amul njariñ naa julli bi muy julli nag te yéefar yi ñëw nañ di leen wër ba jege leen ba séen ne fii lañ campé ñu gaaw wootante ñëw gis ne kenn rek moo ci nelawut gaaw nañ ko fett nañ ko duurug fett rek su dee wala mu faatu ñu fekk nag jullit ñi fañ ne ñoom ñëpp ñu faaga faagagal leen foofe ñu daal di benn fet mu dal ko ci ci ci ci ci ci ci ginnaaw gi walla ci dox gi waaye taxul mu faatu deret ji xam nga fet xam ngeen bali fettoom day dugg ba sar moom bu ko dee deret sa deret di tàmbali di tuuru di di di di di car di génn waye taxul mu dag julli gi mu kontiné allahu akbar daal di daal di ñu ne waaw mom mom faatuwut ñu jamaat benen fet mu dal ko ci digg deret ji di sarsari di génn waye taxul mu faatu mu ne sami allahu liman xamida waxat allahu akbar dem dem di sujud ñu ne mom taxul mu faat ñu duuraat ko nak benen fet bo xamni da ko dal ci am pàddu ñetteel fet mu xamne nak mom day faatu mu dóor abdullah ibn masud wala saxaabi biñ ko boole doon yee ko ngir mu ngir mu jóg bi mu jógee seen deret ji wër ko sam ko mu tamul yéemu ne ko yow lu teewoon nga yeenu ca fett gu njëkk ga mu ne ko su ma bañuloon ñu ñëw fii bett yonente bi sallallahu alayhi ak sahaba yépp faat leen bu ma bañutoon loolu duma sax sëlmal ndax maa ngi doon yëg baat bi amul mësuma gis lu mel noonu ci kaw suuf moom yëgul metit ba tax na ruux dafa am ay bànneex yoo xam ni kii lekk li nga xam ne kii dunde lu lewut nag du mos yooyu bànneex mukk ak beneen mbir boo xam ne dama ko ci boole nii rek mooy na ngeen moytu xool lu xaram saa yu sa bët bët tegee ci lu xaram dinga am gën jaa weer wala ñaari weer yoo xam ne doo mën a yëg bànneexum xol di nga dem ci bërëb yi yëpp gaa yi yëg seen yëg-yëg nga yaakaar gaa yi dañuy caaxaan wala boog li dañuy daanu yes yi wala dañuy takk ay giri giri fekk yow yaa yëgul gaa yi ñoom ñi ngi yëg <laughs> li ñu yëg fekk yow yow li la jural loolu mooy xool ya nga xool xool yi nga xool lu xaram day day yàq maanaam bànneex boobu day tax doo ko yëg rawatina nag jamono ji nga xam ne moom internet ak yooyu nga xam ne ba ngay dem xool film yoo xam ne kenn mënu ko wax la ca ne yan yàlla musal ci loolu kon bu njëkk bi mooy loolu ngir jëkkante waxtu wi bi ci topp boo lijjantee ba li ngay dunde lew soo dee xale nag nekk ci kër bul jéem a ñaaw njort ca waa kër ga yow fexel ba jàppal na ñoom fu lew lañ koy jële rek waaye li ngay am yow ak di ko lijjanti moom fexel ba lépp lew bul sàcc bul nangu yëfi jàmbur bul ko jële ci anam goo xam ne lewut te boo dee jaay wala ngay jëflante itam ci wàllu liggéey na lépp tege ci anam gi ko sariya bëggee mooy tax mu lew la ci topp lii moom jéego bii mën a ñëkk wax jëlul temps ci yow bu ma ko mësaa di waxtaan damay wax ne lii ma lay wax lépp du daanaka du jël 40 minutes ci yow te boo ko saxalee amul sikk ci diir bu néew man am na gaa yu bari yu ma xam yoo xam ni ginnaaw bi biñ seetaan ne band band vidéo yi wax ñi ngi ko doon appliqué jéem appliqué waaye gis nañ ci jeexit yu bare bare kon loolu moo ci jiitu mooy fexe ba yow xarañe seetantal bu baax li ngay li ngay li ngay dunde ak li ngay am mu lew bi ci topp mooy lan mooy tudd yàlla tudd yàlla mooy lan tudd yàlla lu bare la alquran mooy tudd yàlla gi gën a kawe Sëñ Tuubaa ko wa afdalu dikri kitaabullahi loolu Sëñ Tuubaa waaye yeneen tudd yàlla yi bari na istigfaar muy jéggalu yàlla loolu tudd yàlla la laa ilaha illa allah kooku tudd yàlla la salaatu ala nabi allahuma salli ala sayyidina muhammad yooyu yëpp ci tudd yàlla la ñaan tudd yàlla la yooyu nag boo leen seeta yooyu yëpp daje na ci xasida Sëñ Tuubaa yi boo seetloo xasida yi am na yoo xam ni day jagoo ci genn fànn am na xasida yi salaatu ala nabi comme jaalibatul maraaxib ak nuuru daaree nekk bis rek muqaddimatul xidma yooyu xasida salaatu al nabi la waaye am na xasida yoo xam ni tagg yonente bi la loolu ba tey ci salaatu al nabi lay dugg ndax Sëñ Tuubaa fu mu tuddee turu yonente bi faw mu julli ci moom moom loolu da ci du tàyyi du ci tàyyal fu mu ko tuddee lu mu jege jege faw mu doxale fa ak salaatu al nabi doog a àggale wax bi tagg itam salaatu al nabi la am na xasida yoo xam ne digganteem ak boroom la mooy sant yàlla la xasida sant la كم bi mi dem ci géej gi xasida gi mu ci def asiru ma al abrari xiina asiru wa danna al ida anni hunaka asiru xasida yooyu ak yu bari ci géej gi ak ginnaaw géej gi xasida sant yàlla la tagg ko ak ñaan ko ak wax xéewal yi mu ko defal mu di ko ci santaat yooyu yëpp ba tey axeet yàlla kon xasida yi xas ay tudd yàlla la yu kawe ndax dafa bàyyi ci xolub Sëriñ Tuubaa ak ruuxam loolu moo ko ak wax yi ni wax masalan nga former sa salaatu bopp li koy wutaleeg tu yi sëñ bi def mooy ñaari xol yi ñoo wute ak ñaar ruux yi loolu dañ ci ñëw léegi xol bi bu seetee dëgg-dëgg baat bi muy wax bu fay génn day jël mbubb xol mi maanaam xol bi nam mel mbubb mu mel noonu lay la baat bay la baat sol bu dee xol bu fees dell ak ak leer faw mu jeexital ci borom nopp bi faw mu dugg ci xol bi faw mu sax fa itam def fa jeexit loolu la xol bu baax sell leer noonu la wuuteeg borom xol bi nga xam ne tey dafa taq tilim adduna fees ko kooku ay waxam du du weesu nopp yi dégg gi nga koy dégg du du defaat benn jeexit kon ñaareel bi mooy tudd yàlla tudd yàlla nag ñi ma ko waxee lu bari la te alquran moo ko digle wadkur isma rabbika bukratan wa asilan wadkurullaha dikran kathiran wa dhakirina allaha kasiran alquran moom looloo ko fees kasiran dikru moom fu mu ko waxee rek rek mooy na bari waaye nag tudd yàlla ay façon la wax gi ngay wax ni di tudd yàlla di jàng ni loolu tudd yàlla waaye boobu taxul taxul a jug taxul noo jug boog maanaam taxul na du objectif bi nit yàlla yi liñ bëgg ci yow mais Sëñ Tuubaa li bëgg ci yow du tudd googu dëgg mooy tudd xol sa xol di fàttaliku yàlla tudd yàlla mooy di ko fàttaliku lu ñëw nga delloo ko ci moom loolu it wax naa ne moo tax anam gi ma wax ci gi ma jublu ci tudd yàlla anamu ñaareel googu laa jublu mooy mooy xol bi di tudd yàlla soo bëggee na soxla ko yàlla am na yoon wu ci gaaw te waxoon naa ko ci kaset yooyu mooy nga fexe ba xéewal gu ñëw nga lëkkale ko ak ki la jox xéewal gi suñ Tuubaa bi muy jàngale sant ci masaalikul jinaan dafa wax ne shuhuduna min dil jalaali niama mooy xéewal gi nga xam ne yàlla moo la ko jox ci misaal yu bare bari la fi ne su gudd jotee muy mooy misaal mi mi nga xam ne moom laa ci lu ma koy misaal bu guddi jotee looy def lu may dem tëdd ci lal bi tàmbalee ka euh, gëmm di xaar xéewalu nelaw dangay ngay gëmm di wëlbati ko wala wëlbati ko waat ba keroog nga yëg ne nekkuloo fi maanaam dootoo yëgati sa bopp soo demee ba nopp lu ba noppalu ba noppalu nga delsiwaat xamaat li xew yëg ne delsi nga yow yóbbu sa bopp dellu si sa bopp itam loolu dara gënu koy xewal neewal nelaw moom nga gis boo amoon ñetti fan yoo xam nelawoo kenn du xam looy nuru doo wax luñ dégg doo doo mën a communiquer kenn ñetti fan yoo nelawul kon xéwal googu saa yoo tëddee di nelaw wala saa yoo yeewoo war ngaa santaat yàlla loolu mooy nga lëkkale xéwal gi ak borom xéwal gi nan ngay sant yàlla mooy yonente bi moom loolu la daa def bu ma saa tëdd ba yeewu lan lay wax alhamdulillahi alladi radda ilayya ruuxi ma delloowaat sama ruux dekkalaat ma ndax nelaw dee la dee gu ndaw la loolu gën la ci xewal yi masalan boo boo boo xëyee suba dugg ci wanag wii nii boo demee man nga faa def yu bare bari man nga tur ndox dara gënu koy xéewal laa lay wax pooseen yi yi nga xam ne moo moo moo dajaloo sa biir bi nga am xéewalug man koo sot ci jàmm bu bu bu mom na ñëw moom moom tuur ndox googu ndox moom bu fekkoon ne da nga am ay fan yoo xam ne mënoo koo génne hôpital nga jëm dañ lay opéré du xool ak yëf fooy am na ñu am yooyu feebar nga ay raakool ak biiteel yu mag ay bidon yu mag lañ leen defal ci ñu di ko yóbbaale nga xam ne mëntu dem fenn moo tax kon loolu xéewal la xéewalug mën a tuur ndox ak la ca des ci sa yaram lekk gi ngay lekk nii la ca baax moom la yaram wi dunde la ca des mu def mu dajale ko ngir nga génne ko buy génn sax dafa yëglu yow nga yëg ne war na maa dem ci toilette yi nga dem dikkaat kenn du xam ci yow dara loolu dara day gën ko gënu ko nekk xewal yàgg ak nun nu miin ko ci sunu dund moo tax duñ ko jàppe xewal waaye dara gën koy xewal nga amoon fukki fan yoo xam ne mënoo dugg ci wanu yoon boo fa duggee doo mën a génn dara yow moom li gars yi wax doo ko mën a te xam doo mën a teew ci jàng yi doo mën a dem fenn sa yitte mooy dem hôpital pour ñu saafara boo jëf boo defee loolu ngay def ba noppi ndox mi ngay jëfandikoo dara gën koy xéewal dafa bari ci say bët tax yow nga fàtte ne xéewal la waaye imagine ndox boo ko ñàkkoon ñetti fan ñetti fan boo sa yitte jëpp ci noo ko amee ngay def te kenn du xamante looy nuru